jotna li biri biri biri te téye sa loxo yow. yow fii nga dëkk. waaw fii mooy sunu kër. yegg si sama papa sax mi ngi ci biir. yegg si yow nag xamoo sa bopp naka jëkk nag juumuma xam naa ni fii nga mën a dëkk man fii ma taxaw rek dafa ma gêné nga naan ma ma yegg si yow yow est-ce nga jom. yow mënoo bàyyi sama doom nga ne ale mik rek doo ko bàyyi fan nga ko teg. waaw mais man ak sa doom dama bëggante bëggante boo xamante ni lu naturel la loolu rek la mais du dara. lii mujjul naturel ndax man mii yaayam bëgguma te àdduna du neex ba ma bëgg la. loolu naa la def man defuma saful aw ma ca droit safoo ma. sa dara ma doyul yow mënoo seeti leneen wala nga xool loo tollool yow déjà fii nga nekk nii rek yow waroon ngaa xam sa bopp yow cuuj day xam le kambala moo fot de xam nga menacé woon naa la yee jamono waaye bii dina wuuteeg yama la doon def yow xam nga ne yow lu ma la wax dama koy def yow xam nga ne man ngërka la di gaje ngeer di lam man lu wax def ko càcc mi muy teel sama ya, doom. da nga doon ñaanal rek ma ak moom soo nu ñaanalee mën na see def sutura. yal na yàlla tasaare diggante bi ta yàlla mi, su ma ko ñaanee dina ma may donte tuuti am naa ci lislaam yow yaa ñàkk jom. waaw waxal na sama papa dafa feebar. waaye yow na dee man dama tiit loolu man ca kaw laay wax na dee man loolu dara dara ma cee bagaj man li ma ñuulug mooy ñëw bi ma ñëw fii wax sama doléance waay yow mu naa ma sama papa heure bi waroon naa fekk mu nekk bàqiya man dara damaa bagaj man waay yow duul waay mënu ma gëm lii waay waay yow duul waay yow seen sagaru kër gu bon gi ça fait l'affaire. Bon, on va essayer avec Google. Au niveau de Google. Ouais. Eh, gara mo foja. Ko na ba dumo. Eh, pusan fiya. Wan pus. Eh, na mai jal ko ngon to fola. Eh. Kilo ko na. Yo, tahol ka. Yo, fa ba jaga wan mga ko. Tahol ka na mai fa. Ya fur ka dem. Da ngay taxaw de. Do dem de. doo dem ah doo dem de taxawal de ñëw. waaw waaw mais boo ma déggee waat. non taxawal daal ay kii waaye kii lu ko dal taxawal. bàyyi ma ko boobu soo génnee naan la ba ma génn ba nga téye ma. maa lay xaar fii. yow xaw ma da ngay wuy téléphone xaw ma lan ngay def yow. yow yaa ñàkk fayda yow yaa bon. yow yaa sàmba àllar. yow yaa bon. yaa judd ci gëléem nàmp ci mbaam. Omar yow war ngaa toog fii di séddale ay xaru tabaski ñu lay wax ak yow nga jël sa sagaru cent mille francs sànni ñu ko sa papa feebar bay bëgg a dee nga toog fii di sàmba alaar yow yaay baadoo la nga toog sa njowaanu donkaasi gi di féexlu te lépp sa baaya sacrifier dundam defal la ko yow yaa bon yow li la metti xam naa ko dëgg bëggoon ma takk la takku ma la man ak yow duñu mos a sëy ki ma bëgg mi ngi daagu sama biir kër ma ne ndokk Omar ndokk laa la wax. yow man ngay waxal yow de bu boo desee si góor man suur naa góor yow yow yaa bon. yow ya yow de yow boo desoon si benn góor yàlla bu ma am jëkkër sama yow mayu ma la ngay wax ak man di hausser la voix dimbale ma laa la wax yow Omar man ngay waxal yow yow laay waxal yow laay waxal eh dama lay nokk ah je te casse tout de suite la gueule bugguma yëkkati sama loxo ci kaw eh na génn waay eh. sors de chez moi eh, yow sa mbéj yi moo gën a tuuti ci li ngay def tàmm naa eh, góor góor bu bon kese mooy tiim jigéen di ka mbéj. Aminou Mbaye yow di tiim jiw la boo ma laalee. boo ma laalee buusew ma. yow dégg ma chez moi. jëndal kër soxlaa chez moi. dama dina soxlaa chez moi. c'est que mënu ma dóor jigéen sa kanam quoi dama dina génn. yow kii na fi ñàkk fu la trop kii na waay ah. kaay am lu ma la waxoon kaay kaay eh. ma toogee sax dama ñàkk. kon xam nga loolu yow nga ñàkk a fayda yaa ñu wër ni yàppari yàppari si kër jàmbur yoroo leen doo leen toog yoruñu nañ toog quoi toog leen. yoruñu leen yoruñu leen toog leen. vas lan pas bébé nag ah non attends attends attends lan laay wax ak sa yaay pas bébé non attends toi aussi si sa ñëwoon na fii ci biir kër gi lan la la sa yaay wax déedéet déedéet demewul noonu attends demewul noonu sa yaay ñëw seet si ma ma kontaan si loolu am ci mbégte mais sa ay may moom ma wax sax xas na ma dóor rek la ma deful nee na daf ma yóbbu police lu nekk wax ma ko xas na sunu kër lii laa am fii laay tiitaroo mais Khadija man lan mais lan moo ma jaral ma lay raconter ay belle verne non sa yaay moo waxul dëgg yow si sa yaay moo waxul dëgg man awma benn intention di la fenn waaye yow lan la mo ñew fi wax ma ma man teguma ci benn baat dama ko bàyyi mu wax neena la sa yaay lepp lu ma wax yow la koy xolé wa kon nga gëm sa yaay mais limu wax du deug elle elle ne t'a pas dit la vérité ma ko wax day fenn kon so fekke lool nga bëgg deug way merde wala xolal couper sa téléphone trop c'est trop eh waaye non non way papa ma ngi jéggalu maa ngi jégalu bu baax ñii dañuy tàngal soxol man miskin laa dëgg la faqir laa dëgg la mais du tax ba ñàkk fayda sama këru àdduna <coughs> dëgg la leen xam naa fi nga toll la rek ana ana faama faama faama faama xoolal Ndeye famo, dama bëgg nga déglu bu baax nga déglu ma sunu tabaski mooy dàq tabaski ñi nga xamante ni yor nañ ay deux cent cinquante xar ay cent xar ak trois xar di maye ya. man xam bu baax baax lan mona nekk sa xel xam bu baax baax lan ngay joy. mais fompal say rongoñ ba mu set ndax man mi dinaa génn ci biti su ma lu mu jar ma def ko ba mu def sàcc pour indi leen xar bul joy. noppi daa am lu ma la doon wax sax mais banaa ko noppi man maa la wax loolu bul jooy maa ngi ci biir. leen door gis situation kër gi rek ne Omar fale ka ma wax ak moom. da nga dem kër Omar. ma dem foofu di waxtaan ak moom mu mbéj ma. lan non. no ata Omar daf la mbéj. Ndola Omar war na maa mbéj. non non non non non Omar sañ naa mu def lépp ci këru àdduna ma nangu ko bam bam lay mbéj yow loolu man maa koy lijjanti sama bopp. Omar est-ce que ñoo

fois Omar dina ma dégg Omar